maa ngi dégg tam waa RTS <laughs> ak waa Sénéra xaw ma Sénéra xaw ma Séné biir buy daw naan ay Diomaye Faye du jaar RTS woo kon yéen RTS mi ngi am ba léegi <laughs> gaa RTS mi ngi am ba léegi yéey man ORTS laa gëj a seetaan RTS ORTS laa gëj a seetaan eh, RTS mooy jamono jo nga xam ne ndeysaan télé noir blanc la woon ñu teg ko nii ci ëtt kër gi ñëpp di seetaan ñëpp toog nii ñi ko ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ngay toog nii di xool man boobu laa gis c'est o r o bi o bu ngand lay am nii o o bu ngand ñu wërale ko nag ak benn fles boobu laa gëj a seetaan jamono jooju da ngeen ñëpp dañuy toog nii fees dell ndeysaan ci ëtt bi nag toog ñëpp toog seetaan ñuy xaar xale leen yoonu daara jee ni ngi ñaan yàlla dooli ñaan yàlla jee nga ne ko yee ci ñaar ndong ndong ngot dungun ndong ngot ron ndong ngot dung ndong ngot ron ndong ngot dungun yooyu man boobu laa gëj a seetaan RTS vraiment jamono jooju wooyu wee dama neexoon ron ndong ngot dungun ndong ngot ron ndong ngot dungun ndong ngot <laughs> boobu laa gëj a seetaan RTS boo xaw ma ñii xaw ma xamuñu seen bopp quoi ñu naan ay bëggaan ay ay Bassirou Diomaye Faye du fa jaar trois minutes ñi ngeen sañu télé yi télé yu mag yi gis ngeen télé yu saf sàpp yi buñ leen jàppee yi ngeen xam ni lépp dëgg la nga vendredi di xool leen seen télé yi ñaar doo leen ko gis ñaar léegi occupé internet bi xoolal jël mbir ya wili pan non jomaay <laughs> jomaay mooy am riir ba ngeen tiit ubbil nañ ko fépp jomaay gi day riir jomaay <laughs> gi day riir xam nga laay laay nga day riir jomaay nga day riir incha allah vendredi internet bi yëpp ñun ñoo ko moom ñoo moom Facebook Instagram WhatsApp MySpace TikTok YouTube lépp ñoo ko moom dinañ ko wulli yulli tulli ba ngeen faatu ba ngeen xam ne RTS du gàtt léegi ku fa jaar sax day perte la 3 minutes loo fay ban programme nga mun a wax ci 3 minutes ñii de ñii de yéen <laughs> boole ñu ko joxoon sa bugguñu bugguñu xamuñu leen yéen mystique rek ngeen di def ku fa dugg RTS yàq la nag ak ñoo gëm mystique. ñoo tax ko jour RTS dañ fay gis koo xam ne tànk baay néew yi cent ans du liggéey kii ndigg laay karamp kii bopp bay metti RTS ay dëmm ay dafa bëri dëmm ñu suul rek ak ñoo mën a suul da ñëw fajar gis ay bopp signeel bopp kaña bopp bukki ay ay ay ay bukkitu uh, yéet ay ay ay ay nopp golo <laughs> lépp dañu suul <laughs> te man RTS xawma lu fa da nga fay jog gi yàqu ku fa ku fa jaar yàqu da nga fay génn nekk lafañu wala sa am problème gi sa wax ak bëgguñu RTS demuñu fa ñi ngi suñuy télé ci poche te ñi ngi partout partout parce que patriote yaa ngi au fin fond du Sénégal partout dinde felloog saara yaa banda fasek ñi ngi fépp